salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu mbokk jullit yi di nuyu mbokki taalibe yi di ziyaare suñu sëriñ bu baax bi muy sëriñ Muntaxa moom sëriñ Basiru di ko ñaanal yal na yàlla yokk fanam lool te yokk wéram barkeb sëriñ bu baax di ñaanal sëñ Cheikh Jëmb Fall ko ñaanal moom itam yal na yàlla yokk fanam lool te yokk wéram ci barkeb sëriñ bu baax Cheikh Ibrahima man nag wax dëgg yàlla euh, di ñaanal nag ñi nga xam ne ñoo may teewlu waxtu wu ne di ma déglu ak di rafetlu samay kàddu waaye nag damaa tudd ba waxtu wi une di du matin jot na mënumaa nelaw ndax xalaat bu baax a baax waa jii nga xam ne moom laa dégg muy wax muy mari taw ñaan xaw ma mari taw ñaan la xaw ma man turam yi xaw ma turam lu doon waaye moom laa déglu seetaan ko ci YouTube bi teewlu ko bu baax a baax mënumaa tudd ma jógaat parce que am na yoo xam ne bu ko naar bu ndaw waxee ca naar bu mag ba la ko déggee ndax li ma xaw a jaaxal mooy pourquoi Aly Ngouille Ndiaye bërki dém boo Ndiaye mu génn wax fi def fi déclaration te ba tey tuddul lu jëm ci lii ma Mary taw Niane wax lu dul ñu xëy xëy rek dégg ñu naan préfet bu Ndakaaru jël na décision nee na benn yëngu-yëngu bu mu amati Ndakaaru loolu yépp li ko waral ñun xam ne ko dama bëgg na ñoom ñu xam ne fii ay bàyyi ma newuñu fi ay nit njaay ñoo fi nekk ñu yor xel di xalaat te ay dof newuñu fi ay nit a fi ne rawatina na ñun munu saadix ab dofu fi ñëw fu ñu yëkkati kàddu jëme ko fi ak lu ñuy bëgg a wax ak lu ñu xalaat rek fekk na nañu xam ne waaye nag yàlla ñu bindee ñu amub yar amub teggin ba pare nag di déglu suñu kilifa dama bëgg nag moom Mary Teuw ñaan mu xam ne wax dëgg yàlla lii du waxam moom waxu président Macky Sall parce que président Macky Sall moom moo waxoon ne gaynde guy nelaw la moo ko waxoon ma bëggoon na comme moom moo waxoon ne gaynde guy nelaw la lii bu ko yitteelee na yow waxal ko boppam defal ko boppam déclaration ndax déclaré na fi te waxul loolu feebar bi kenn ku ne xamoon na ne mu ngi fi woon xamoon nañ ne mu ngi woon te ni ñu waxee ne noonu la feebar bi wàllee gisoon nañ ko xamoon nañ ko te teewul président Macky Sall defoon déclaration ne nañ dund ak feebar bi te jël suñuy matuwaay kon bu ñu bàyyi màggal Tuubaa ji jib ñu war koo waajali am ay programme yoo xam dañ koo war a defi Ndakaaru am ay ndaje yu ñu fa war a defi pour wàcceel màggalu Tuubaa gi ñu bëgg a wëlbatikuwaat nag bëgg a bloqué loolu ba ñoo freiné tax ñu wëlbatikuwaat nag di wax ay wax yu kenn xamul naan arrêté nañu ay ndaje yi am Ndakaaru yu ma xamul mais plage yi day fees dell ba léegi mais feneen ak feneen ña fay def ay ndaje lan moo tax terewuñ loolu lan lañu singalee Touba ak lan lañ singalee murid yi lan moo xew lu tax ñu koy xëy yàpp waa Touba pour lan pourtant lii de mosu fee am waral loolu pourtant ñun day teggiwuñu suñu tànk fañ ko tegoon ma bëgg nag Mary Teuw Niane moom na delloo si xelam te xam ni ñun dégluwuñu ko du suñu du suñuy taalibe bokkul Tuubaa amu fi kër màggalu fi bu fekkee nag naar bu ndaw lu mu dégg nag ci naar bu mag ba la ko la ko la lu mu wax ci naar bu mag ba la ko dégg ñu leen di dégg ci ñu leen di xaar li ñuy wax suñ ci ñemee nañ ko déclaré directement wax ko nit ñi xam ko dégg ndax ñun xam nañu màggalu Touba tuubaa ji lañuy waajal te moom lañ bëgg a bloqué moom lañ bëgg a annulé ñëpp xam nañ dafa am loo xam ne nit ki kenn warta laal gëm-gëmam te waxtu wu ne nag ñu ngi tàppaas waa Touba ak di jéem laal seen gëm-gëm te loolu c'est pas dama bëgg na ñu xam ne Touba gi seen maam moomu ko seeni bàyyi moomu ko Serigne Touba ko moom Serigne Touba sanc dëkk bii moo samp dëkk fii moo koy gérer boppam mënuñu ci dara parce que coronavirus bii ñuy wax boo ko xoolee ba segg ko ba ca biir wax dëgg yàlla Ndakaaru la et pourtant ña ngay bàyyi ñuy def seen i programme ku yore problème feneen ak feneen la ëppee dafa mel ni sax booy xool wax dëgg yàlla nag kenn mënu koo comprendre dama bëgg ñu xam ne fii ci dëkk bi suñ borom ngi ñuy suturaal ndax dëkk bi borom a koy aaral boppam Mary Teuw Niane nag du moo fiy dogal du moo fiy def moo fiy bind xëy na dafa bëgg a def flèche pour xool ba xam bu nooyee ñi ca kaw daal di appliqué nañ ñu may jàmm nag te bàyyi ñoo suñu màggal di jënd seen i tubaab ñun dañ leen a déglu wut yu leen ci dara ñun Serigne Touba la ñuy déglu kii Serigne Touba mooy Serigne Mountakha kooka ñun ñu ko ndigal tey duñ ko sant dara waaye dañuy dégluñ ndigalam di ko jafe fii ci Touba loolu laa bëgg nga xam ma bëgg nag ñu may ñu jàmm tuuti nag te teggi xiddeeku tuuti nag waa Touba te teggi ku ñu nag ndax ñun ñaŋ ca la ñu waat muy gëm Serigne Touba ànd ak Serigne Touba tamit dëgg ci ñun. kon damaa bëgg ñoom nañu xoolaat li ñuy def bu baax a baax a baax te seetaan li ñuy te xam ne fii ay bàyyi ma newuñu fi de ay boromi xel fi ne li ñuy nas ak li ñuy waaj ak li ñu bëgg yëpp ñun xam nañu oyofal nañ leen ba mu neex ba mu neex leen nag màggalu Tuubaa ñu bëgg a wëlbatiku nag pro indi ay programme yokku ay wax yokku ay taux sonal ñoo ñu sonal ñoo ki wax lu ko waral loolu bëgg a fam màggal gi nañu may jàmm nañu may jàmm ñun dégluwuñ leen te loolu bu leen ñoree na président Macky Sall génn wax ko naa moom gaynde guy na la moo ko waxoon na yeewu kon wax ko na yow wax ko moo gën cuub cuub jeeg capp-capp jeeg wax ji nañu may jàmm loolu daal laa bëggoon ñu def ko nañu may jàmm tamay ñu salaat te xam ne fii moom dëkkub Sëriñ Tuubaa la dara lañu mënalul pexe yi nag yàgg na jéem gi yàgg na yàq gi yàgg na ba fi iblis yàgg na waaye mënaluñu dara ñoo ngi ci mucc ba tey tey damaa bëgg président Macky Sall wax mu ne maa ngi koy fàttali ne ko siège bi mu toog yàgg yàgg da koy wàcc jox keneen kon na ko rafetal ñi ko wër itam nañu xam ne siège yi ñu toog yàgg yàgg dañ koy wàcc jox ko nee nañ jéem a rafetal xam nañ ñi wër-wër réew bi yeeg coow léegi yépp xam nañ fi mu jëm mooy bëgg a fomm màggal Tuubaa bi ñun nag dégluwuñu kooku di wax di Malick Taw ñaan tey dégluwuñu ko ëllëg ñun ko ñuy déglu mooy xalifa général dégluñu lan ñu sant moom la ñuy def lan ñuy tere moom la ñuy bàyyi te duñ ko xelal duñ ko laaj xalaat nañ waxante dëgg ba ca topp nag maa ngi tuub bu baax nag tey jéggulu ñi nga xam ne su ma waxee lii ma wax yëkkati samay kàddu déranger leen maa ngi leen di tuubal di nag suñu mbokk jullit yi fi jógee ndax wax dëgg yàlla période bii sax du période wax waaye nag nañu xam ne man soxnaa si Guy Mbacké heure bu ma jógee wax rek dafa am lu ma yëngal muy sama ngëm-ngëm bi ak yoonu murid bi moom laa supportéwul dara lu koy laal supportéwu ma dara lu koy nekk heure bu ñu ma déggee ma yëngu rek nañu xam ne lu yëngu lu ne la ko yëngal ko ëpp lii tëdd naa ba une heure du matin mënatumaa nelaw moo tax ma jóg def vidéo bi wasalaam maa ngi tuubal ñëpp tey jégalu ñëpp wasalaam